ay ca jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy topp à travers Leewtoo TV ak wasaare lamb ñi ngi amati mbégte ak contentement di ñëw di jàkkaarloog yéen di waxtaan ak yéen ci wàllu lamb ku ne xam na ne démb bis la bi nga xamante ne bii bisu làmb la woon diggante Modou ak Boy Niang nekkoon combat bu amateur yi làmb yëpp doon xaar ñu xëy seet si jëmm ja nga xamante ne bii avant combat bi yëkkati woon na kàddoom am lum ci waxoon yeneen combat yi jàll yi jàlloon tamit yëkkati na woon ay kàddoom am lu ci waxoon te lépp lu ñu mosaa wax ci làmb teg nañ ci suñu bët li olof njaay naan lu ne fàng kenn du ko jeex te loo bañ a siñ bañ a siñ buñ ko pëtee say tuñ nag faaw nga siñ ñu koy wax Bambo la solution ñu fas yéene waxtaan ak moom ci combat mooduloo ak Boy Niang bi passé kàddu yi mu yëkkati woon avant kombaa bi ak li nga xamante ne bii noonu noon noonu la ko amateur yi gisee noonu la ko axlu làmb gisee lan lañ ci mën a wax Bambo ñu bàyyi la nga nuyoo. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bu ñu sant yàlla julli si yenente bi di sant suñu ñaari waajur yi di ñaanal sama yaay bu fekkee sama njëriñ di koy ñaanal bu baax baax baax di yërëm sama papa di koy xaar euh, ñaanal fu mu tëdd yàlla xaari ko àjjana di nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi di nuyu ñëpp daal di nuyu diaspora bi ak euh, Sénégal fii ñu ne euh, di ñaana yàlla yàlla na réew mi am jàmm di leen nuyu di sa waa ji nga àndal di nga nuyu baax a baax a baax idi idi bu doy waar bi jërëjëf mbokk yi kooku mooy Bambo la solution di jëmm ja nga xamante ne bii lépp lu mos lépp lépp lu ñu mosaa wax avant combat teg nañ ci suñu bët combat Modou Lo ak Boy Niang mu waxoon ci lu doy waar na woon Modou Lo day daan ki nga xamante ne moom mooy Boy Niang waxoon sit bi ne muy demee waxoon ñaata soufflet mooy am ci biir combat bi yooyu yëpp dinañ ci duggaat mais li ma la bëgg a laaj mooy Bambo dafa am jinne yooyu waxtaanal dafa am rawaan yooyu waxtaanal walla nu mu demee noonu. waaw man yàlla yàlla daa am lu ma booleel ma xam loolu moo tax pour ma bëgguma sax di teel a wax waaw mais lépp lu ma wax si làmb rek. xanaa yàlla ñëw ak ndogalam mais du nit moo koy dindi. Mhm. kon mën nañu wax ne kàddu yi kàddu yi ngeen ñu waxoon avant combat bi foofu nga ko tam waaw boo xoolee sag làmb moo wax. li lay woon ban moment la lay woon. su ma bëggee tey tey làmb amee làmb day daw en même temps muy daw may wax. Hmm? waaw làmb di daw nii may wax. mais man jouru làmb ji damaa seetaan sa statut. démb damaa seetaan sa statut. nga ne félicitation moduloo ne Boy Niang dana xabtalu xabtal bu metti mm-hmm. dëgg la pare parce que làmb yi man dama ci liggéeyoon waaw dañ ma fay dañ ma fay xaalis bu bari da ngaa ñaanal Modou ci combat bi dama ko ñaanal mais jox ma ko ba sangu jox ma ko ay sarax loolu mais li sarax bu ma ci def nag maa ngi koy filmer wan ko ki ma engage loolu day am ci làmb làmb dafa yaatu moo tax. la engagé ku bokk ci staff wala kan. Rakam. Rakku Modou. waaw mu ngi mu ngi Espagne ñu may dégg. des fois mu ne Espagne des fois mu dem France waaw. ban moment la Modou téye làmb ji ci loxo. Modou téye na làmb ji ça fait boo xoolee seen semaine face à bi bu mujj bi waaw foofu la foofu la téewee làmbam. foofu waaw man foofu laa gisee ndamam face à face bu mujj boobu. bi nga ne arbi ñaari yoon ci biir combat waaw ba ñett. waaw waaw loolu yëpp waaw loolu yëpp mbiru sunu booram la ba ba maa ngi ne euh, làmb ji dinañ ci dóor boo ñaa ba mu kaw ba esaat ñoo xam ne kii dafa jël coup dafa kaw léegi dina mel comme lu teg trois appuis mais ci biir tournoi ci biir jàppande boo am na lu fa xew. mooy boo ñaa jëlee tànk Modou. waaw après ba ñu jàppante Modou daan kon boo waxee rek yàlla sunu borom ànd ak yow si li nga wax da ngay santaat waaw <coughs> loolu la quoi. Modou mbër mu neex a ñaanal. Modou mbër mu neex a ñaanal la ci jamono ji. waaw dafa mel ni comme géej. instant yi ñëpp ci moom la ñuy roote. géej nu mu yaatoo instant ñëpp ci moom la ñuy tànk pour root pour dem may sa morom mu naan waaw. daal mën nañu jàpp ne Modou Lo fi mu toll nii ci làmb géej la ci. waaw instant géej la ci instant moom wax dëgg yàlla moo ngi ci buntu làmbam moo ngi ci biddéewam ci làmb. biddéewam fekk ci làmb waaw. instant yii moom wax yàlla moo ngi ci waaw. Euh, wax nga ko sànq nee nga face à face bu mujj bi ci semaine làmb ji la Modou téye làmb ji. mais dañuy gis làmb en général dangay dem ba ci biir géew ñu fuqarti ko da ngay dem ba ci biir géew ba summeeku ba arbitre waaj a soufflé ñu fuqarti li nga xamante ne bii moom mooy victoire bi nga yoroon ci sa loxo. non man de du ma yóbbu mbër ñu koy foqati de man lu gën a lu gën a doy waar kay nga wax ci làmb ba wax sit bi ni muy demee te am na sëriñ ñi newoon boo ñaaree daan ñëpp déglu naa leen. man même bu dul làmb liggéey mooy sax mbër bu ma ne da ngay daan si kàttun yàlla dinaa su ma ci xasee ba wax nag xanaa na ñu fay ma si diggante bi buñ ma fayee si diggante bi damay liggéey beneen mbër bi nga xam ne moom laa waxoon day daanu waa mbokk mi bu ñu ma woowee fay ma dama ciy liggéey waaw dama ciy liggéey bu baax mais su ma ko waxee fayuñu ma damay jàppale kële kii ma wax. mais mais nu ñu mën a comprendre Bambo ne liggéey na ci combat bi. jox nga Modou mu sangu wala joxoo ko mu sangu. déedéet déedéet joxoo ko mu sangu. non non jox moom du takk moom loolu moom loolu loolu moom du ñu joxuma ko sarax yu muy génnee joxuma ko. joxuma ko mu sangu. joxuma ko mu takk. lu may def mën a raqam bi la. am na benn xarit nag mu ñuy wax euh, Muniru maa ngi koy nuyuwaale moom xam ne lii may wax ak Rowan Rowan bu moo ne xam ne lii may wax waaw mais jàpp naa si bu baax a baax a baax dëgg ñaan bi nga ci ñaan ban façon ñaan ñaanu kurus la wala Modou Modou moom joxoo ko mu tuur non déedéet mbër mu nga mu nga ko ñaana bañ ko jox mu sangu boo xamee rawaanu arène bi rek jeex na te Modou daa neex a ñaanal Modou avant làmb day yor alxuraanam alxuraan bi daa am ay mbir yu ci nekk quoi booy ñaa mënul xamul loolu ko lu day jàng alxuraan ci biir làmb ji. day jàng waaw mu <laughs> dafa neex a ñaanal jamono jii rek. waaw hmm. ah, daa neex a ñaanal. dafa biddewam dafa waaw mais tamit di nuyuwaale Sa Thiès ak Balla Gaye ak Double Moteur. Hmm. waaw ñooyu moom euh, ci man lañu bokk. ñooñu mënuma leen yemale dara di leen ñaanal bu baax a baax a baax. di ñaara Sadio combat bi mu jëm <laughs> yàlla may ko ci ndam ba ci ba ci Modou sax booy bu ko war a daan sax yegg si na waaw. booy bu war si na. waaw yegg si bu ko dëkk. Ah, nekkul ki duggoon ci biir géew bi dëkk. <laughs> du kooku de <laughs> déedéet booy booy yegg si na. bu la bàyyiloo làmbum jàll <laughs> làmbu jàllee. di ngeen dafa am combat wala amul combat ki ko war. en tout cas daal na benn boy boo xam ne ni moo gën a jege pour daan ko te yegg si na incha allah. am na combat wala amul combat jamono bii. bëgg ma ma ci sori. <laughs> <laughs> non non du non du Sa Thiès. du Sa Thiès. déedéet du Sa bëri nañ fi. waaw bëri ah, nañ fi. mais man xam naa kii ko war a daan. te incha allah rabi dinaa ko wax. ci kàttanu yàlla. ki war a daan Modou. ci kàttanu laa la wax. yaakaar na Modou day non man nag lii li ma gis. ah lii nag sama xol. Hmm. xam naa ne du bàyyi. mais mën na dégg wax bi mën a ak xaruma bàyyi. <laughs> xale bi ko war a daan si non non moom lu mën di xew couronne bi dina ko joxe balaa dem xanaa. non da day bëre si kàttanu yàlla day bëre bu neexee yàlla moom am naa yaakaar wér dina bëre te booy bu muy bëre booy bi da ngay daan. télé laay waxee kay. ci combat bii lay doon wala beneen mën na jël beneen combat avant combat boobu. non xam nga combat bi génn ci. bu muy duggaat. bu muy duggaat combat bii di waaw. <laughs> doon mooy doon mooy doon defetam. <laughs> mooy doon jafe daf ci lay bàyyi làmb mais xanaa kon doo ko ci ñaanal déedéet déedéet mun na nekk mu ñaanal ko mun na nekk ma bañ ko ñaanal buñ ma buñ ma fayee ma ñaanal ko nga koy ñaanal dama xam kii kii lu muy wax moo tax ma bëgg a génnee rek du boobu. non moom jàpp na ne. Sa Thiès nga nga bëgg a wax mais waxagoo. xam nga lii dal booy Boy booy Boy Niang ndeysaan Pikine ñëpp dañuy yàpp dañuy jàppoon ni te pourtant amoon na mille chance pour daan Modou Lo mais defetu defetam fii la toogoon fi <laughs> Mbay Mbay Mbay dafa am lu bari li ma bëgg a pour gars yi xam ko yàlla mooy maye yàlla mooy xool lu ko neex mu def ko ci jaamam critique yi na dina bari coow dina bari wax yi dina bari mais man maay laam man maa fi ne. en tout cas combat bi benn sëriñ ñemewutoon a pronostiqué yaa ci pronostiqué woon muy Eumeu Sène Tapha Tine. waaw te lépp lu mu wax gis nañ ko ba vaar man maanaam du ma ne diw day daan déedéet man du ma ci yem de dama lay wax ba làmb yi ni muy demee A ba Z. kon li mu wax ci Ama Balde nee ko bul ngemboo Pikine waxaat ko nii lay daanoo ci côté saako yi quatre appuis lay daanoo waxaat ci combat Eumeu Sène Tapha am njaay joxal jóob dina fa ba benn mbër bi dina kaw waaw ba benn mbër dina kaw bu ñu jógee ci loolu ñu xeexaat beneen mbër bi jël ko génn ne coppet ci biir coppet boobu noonu dañu dem vaar. yooyu bëggoon xam li la koy wan. léegi bu ñu demee vaar nag dina yëkkati benn mbër jox ko victoire. yooyu bëggoon naa xam li koy wan. te pourtant Tapha Tine Tapha Tine am na benn ku xëy sotti gàllaaj xam na ma xam quoi xam na ma xam ma koy nuyuwaale moom tamit soo sama maa ngi koy nuyu bu baax sama xarit la dañuy déggante bu baax a baax a baax Tapha Tine yu bëri tettal yu bari ba ci lu ruus li waaw dama sot dama sot soo maa ne moo tax ma sot ndax ah, Ibou Fall Ibou Fall mbër ñoom ñoo tax ma sot waaw di leen nuyu bu baax a baax a baax parce que mbay guy gi mooy tax daal mbay guy gi tamit ndax amee Lac ay bool bool lañu man même bu dul benn fan sax mus naa nekk bool këru ngunda ngunda Thiaw séeri kii magu duwul ma nu mu tudd Ndiaye di koy nuyu bu baax a baax moom tamit yaa ngi dégg ngay wax ci combat yooyu noonu. ngay wax ci yeneen làmb ay Siteu Papa Sow ngay wax ba Papa Sow ni muy daanoo kon làmb Boy Niang Modou Lo mënu la të mënu të làmb Boy Niang Modou Lo déedéet mais mais mais mais ñu bëri dañu jàpp ne Boy Niang dafa nekk mbër mi mbëri mbër dafa bokk ci mbër yi gën a mystique ci làmb mën nañ mën nañu xam euh, ci côté mystique moom Modou Lo jàpp na ko ci côté mystique wala jàpp ko ci non waru woon rey. moom. Mm-hmm. du ma ci sori. waru woon tur deret. waru woon rey ci làmb ji. kan moo ah, kii xam nu mu war a daanoo. kii xam ne day jël coup ba wàcc. kooku bu la ne waru rey kay <laughs> waru woon rey. nit booy uti bu rey. te boo ñaa dafa rey ba sonn. ku leen moo tax sëriñ si des fois ñoo ngi digg nit ñi loo xam ne nii. baaxul a ah, mais moom na gën a deful waat moom Boy waa waaw sinon après di ngeen dégg na booy Niang sax xaw na tawat wala am na lu muy jàmbat ak en tout cas si ci kàttanu yàlla yenente bi buñ ma woowee ñoom sàqu ma nañu woo ma de ndax man du ma yëg sama téléphone yi maa ngi leen di woo parce que yoor ma numéro moo tax mais su ma ko yoroon tamit dinaa dinaa dinaa ko woo mais muy moom muy ñi nga xam ne jege nañ ko laa wax ku ma ci woo ci kàttanu yàlla dinaa ne Boy Niang lii nga war a def fii nga war a dem pour sangatu pour mun a bokkaat ci làmb sinon bu ko deful pour mu amaat yàgg. avant combat bi dégg naa nga wax ko nga ne Boy Niang bu combat bi jeexee sax mën na cee jëlee ay jafe-jafe ci wàllu wërgu yaram. voilà te estafam tamit coow mën na fa am seen diggante fan yi di ngeen dégg coow dina am seen diggante diggante estafu Boy Niang ba ñenn ñi sax boo moytuñu gedd hmm? waaw. ñoom ci seen biir. mooy ay safo. waaw Pikine de moom Pikine de moom daanaka moom yëngul. non Pikine yëngul nit ñi ñoo koy bëgg yëngal rek ñoom ñoo bokk ndey ñoom ñoo bokk bàyyi moo tax man moom am na yenn yoo xam ne ci wax daal. soo déggee ma ne Pikine yëngu na presque euh, ama ama bi mu daanoo jàppoon nan jàpp nan ne euh, Boy Niang daf ko ignoré te combat tamit xam naa bu jàllee waa kër Boy Niang du ñàkk lu nekk seen xel. xam nga Boy Niang amaa Baldé ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi. boo ñëwaat day naan kafe sax jox ko Ama Baldé naan kafe boobu te ñoom ñoo doon solante ay yére kon ñoom ñoo bokk ndey ak baay te bu ñu nangu nag ñit di leen di jaxase ndax ñoom ñoo mën a defar Pikine si xale yi di ñëw si ñoom lañ mën a xool yaa ngi dégg te maanaam ñoom am Tyson lu mu war a def def na ko pare booy lu mu waroon def def na ko ama lu mu waroon def def na ko démb gis nga ñoo ne surtout surtout kii Boy Niang waaw lu mu war a def def na ko kon léegi ñoom magu Pikine nañu génn waxtaan ak xale yi ñu bokkaat ndey bokkaat bàyyi lu ñu xëcc mu lu ñu song rek ñu am ci ndam. non xam nañ ne diggante Boy Niang ak Ama amul problème mais parfois entourage yi wala supporter yi. waaw ñooñu ñi yàqal mbëri ñi la rek ñooñu tekkiwuñu <laughs> man sama la man du ma nangu ñit dugg ñit di may jaxase sama sama sama sama sama sama xarit daal parce que ki la jaxase sa xarit rek moom mooy jàpp xaritam. waaw ñoom nañu bàyyi xel ci loolu. Hmm. mais Bambo sa diggante ak mbër yi man sa diggante ak mbër yi jaaxal na ma trop man mbër bu ma seeti laaj dem jël ko interview mënul wax ba daaneel te tuddul Bambo laa solution. waaw mbëri ñenn ñi samay xarit lañu ñenn ñi samay deret lañu ñenn ñi nag làmb moom boole ñoom dégg nga wax jooju am na ñenn ñoo xam ne samay xarit lañu am na ñenn ñoo xam ne samay deret lañu ñoo xam ne. bu ñu amee làmb rek laa ci laay sekk ñoom dara waaw léegi nag ci biir sekk ñoom boobu noonu ku si nekk booy bëri ma lay wax lu leer nañ sa biir kër laa la koy waxee wala vocal man la làmb yi nii ak nii ak nii lay deme te bu ñu engagé woon dix sëriñ wala cinq sëriñ man maa ni di wax lu wér loolu nag mbiru suñu borom la yàlla mooy xool lu ko neex mu def ko si nit loolu wara ku daan rek damay sant. waaw ah, man dama jàpp ne ñaankat noonu nga noonu nga war a mel waaw. ñu gis tamit ngay def acte bu acte bu am solo maanaam ñaanal mbër ba paree dimbali ko ñaanal mbër xam surtout mbër yu ndaw yi dañuy gis en général seen kase yi du bari da ngay ñaanal mbër ba pare sarax ya mu war a def ca combat ba diis lool man du benn mbër du ñaari mbër du ñetti mbër yu ma ci waxtaanal ñu ne ma bamboo ñaanal na ma yëkkati xaalis jox ma ne ma génnal sarax wala jënd sarax bu bari génnal ma. dëgg sunu wareef ndax euh, yàlla dala dénk pour nga joxewaat yàlla dénku la pour nga téye dala dénk pour nga joxewaat tey man nu ma mel ci làmb tey su may ñaanal mbër yoru yoru xaalis bi man maa yëkkati maa daaj sama pochette bi yëkkati wala ma jël sama wéef ma yëkkati jox parce que bu bu daanoo maa daanu mbër woo na ma fay ma dërëm ma yëkkati deux cent mille def ko ci làmbam waaw def ko ci làmbam du dara. waaw jàppale ko te yàlla tax. mais mais naa xam ban façon mbër moo gën a neex a ñaanal. ban façon mbër moo gën a neex ñaanal mbër bu set mbër bu set waaw mbër bu setee rek day neex ñaanal. set maanaam mbër bu sell. mbëru sell la nga xam ne nga xam ne kii yaa ngi yaa ngi xool mais waroo sax nekk mbër kooku day neex ñaanal kooku day xam lu bari am. ñu bari oustaz lañ koy wooye. la Modou. waaw non Modou man du sama mbër. <laughs> du sama mbër de man Balla Gaye 2 mooy sama mbër. Ah, Balla Gaye 2 mooy sama mbër. kon xanaa li doon daan Balla moom Modou génnoo ci. boobu commencé woo nekk si ñaan sax. boobu dugguma sax ci mille ñaan mais moment bii nii nii nii nii Balla Gaye Sa Thiès Double ku leen laal de man ngay njëkk a laal de waaw waaw ngay wax ci làmb jàmbur muy am kon sa bis loo si war a def moo tax giro sera ba mu ko indee laalu abu njaay sa mu daanu giro yaa ko waaw na fan lay jaar abu ba daan mooy xam-xam bu wér liggéey ci làmb boo ko xamee rek jeex na moom avant muy bëre xam na day dóor abu njaase mu daanu te du da koy wër noonu moom xam na avant muy bëre tamit xam na ni làmb yi day am coow day am coow ba loxo bi dina dagg kon loolu la ñu la koy wax avant làmb nga ñëw gis loolu yëpp hmm, yow sa yàllaay maye te Balla Gaye dee day ñëwaat te Balla day ñëwaat ci làmb Balla day ñëwaat. ci kàttanu yàlla day bokkaat ci làmb day bokkaat ci làmb mën nañu xalaat mu téyewaat couronne. waaw mën na nekk mën na nekk lépp làmb la rek mën na nekk. Balla mut loo mën naa nekk. waaw ça dépend na ci ñoom ñaar buñ ko bëggee rek man pare naa côté boobu du ma ci mën a xuus daal. Balla Gaye 2 ragal fii day xañ a wërsëg booba Balla Gaye 2 mi lay jàppale mu ñëw daan ko bu neexee yàlla. mais trop bambo la solution bi fan la jógee bala ñoo tàggatoo la solution xam na la la solution moom mooy décanté. waaw loolu ci benn portugais la jóge woon xam nga portugais gëmuñu mystique te nga jàppale ko dama ko jàppale maanaam dafa feebaroon ma faj ko ba mu wér moom moo ma tuddee loolu. waaw moo ma tuddee loolu. tey nit ku xonk nga de nga xam ne kii gëmul ñaan nga faj ko mu dem ba gëm ñaan tuddee la loolu kon du man maa ko kii daal mais sant yàlla. ci kàddu gu daaru kooku sama mag la sama xarit la sama sama lépp la ndax sëriñ si nii bari nañu lool mais maanaam moom nu ñuy communiquer ak nu ñuy waxtaanee amul keneen ku ma ci waxtaanal. bu amee bis dama ciy jàpp su ma amee bis da ciy jàpp lu ma yéene tamit sama bopp laa ko yéene moom xam na ma xam quoi maanaam moom nekkutu sax la nekkutu sax làmb ñoo ngi nekk ci leneen beneen beneen lëfën la ñuy nekk lu àngal ne lëfën ñoo ci beneen lëfën quoi loo xam ne du làmb sax ay yeneen pro projet la nekk maanaam moom du nuyuwaale Samba Ndour ak jantal Mara Mbour waaw di leen nuyu bu baax. Samba Ndour borom. waaw di Ibrahima borom Diourbel. waaw borom Diourbel waaw waaw di nuyu waale tamit euh, waa di nuyu daal ñëpp sax sama waa dëkk Tamba waa Tamba ma leen nuyu ak waa Saalum waa Kaolack dama fa am foofu fan si club bu mag waaw wallahi te musuma leen teg bët billahi wallahi ñoom mu ngi tudd Ablaye Ablaye Jakarta maa ngi leen nuyu baax a baax a baax di nuyu waa itali xam nga samay gars yi nekk foofu di leen nuyu ñoom tam bu baax a baax ñoom musa itali ñoom Cheikh itali du nuyu daal ñëpp di nuyu tam sama joueur yi xam nga sama joueur yi ku si nekk ku si nekk xam nga sa tur nii ñëpp daal la mais am na benn joueur boo xam ne na jug ci boppam Formose Mendy. Formose Mendy bu Grand waaw na jug ci boppam bu baax a baax a baax a baax a baax kaan bii dina commencé ba du muy jeexee du teg ba du du fubal lii maa ko wax fii. na jóg ci bopp Ramos daa mel ne latéral la de. latéral ñetti yoon ñu ngi may won mbiram mais pour ma jàppoon tour bi mooy problème bu fubalee tey suba du fubal wala bu fubalee tuuti dañ koy génne dafa am lu leen loo xam ne moo nekk ci moom mais bëgguma xuus balaa ñii nga xam ne dañaa ñeme yàlla tekkat du xam nga dëkk bi daa bëri dóorkat balaa dóorkat yi jékki saay yi commencé wax te xamuñu gisuñu dara ci moom. te war na am lu nekk ci football te gars war nañu ko dégg mais niveau bi mu nekkee nii du dem du dem. loo ak CAN ak Coupe d'Afrique. mun nañ sori tuuti rek waaw. yóbbu coupe bi. ñoo ko jël est-ce que Maroc du ko jël. Maroc waaw. am boo que Maroc du jël mais Sénégal gisuguma nag fu mu koy jëlee actuellement nii. gisuguma ko mën nañ dem ba ci biir nag affaire yi soppeeku mais moment bi man gisuguma ko gisuguma fu fu ñu koy jëlee blessure yi daal ñooy ëpp blessure yi ñooy ëpp te Sénégal defante rek dañuy defante rek waaw di ñaanal Bamba nag kooku sama sama deret la quoi kooku kooku maa ko bëggal sama bopp kooku sama deret la kooku kooku sama fis la kooku sama deret la kooku sama lépp la loolu dara loolu dara ñaari ñaar yëpp encore waaw loolu dara ah, kii sama deret la te ci kàttanu sunu borom day ñëwaat barki maam Serafal day ñëwaat lu mu dugg maa ngi ci mu yëg ko mu yëg mu ñàkk ko yëg maa ngi ci kii sama deret la day ñëwaat bu neexee yàlla bu ragal dara bu ragal dara lépp day ñëwaat yow Bamba Dieng wallahi azim mais kontaan nañ ci yow ñoo far man ñaareel su may dem bay takk ñaareel laaj lool de ah, yàlla na yàlla dooli jàmm rek xam naa ne dama dama sañ a laaj naa ni daa am lu muy gis rek xam moom pël la <laughs> yi dañuy gis yàlla na yàlla dooli jàmm rek yàlla takk ñaareel <laughs> du yàgg waaw mais borom daaru borom daaru laa bëgg ñu may ko jabar ñetteel parce que borom daaru lu muy dem mbuur doy na waar de <laughs> borom daaru wax ma ne Idi moo wax waaw Idi moo wax maa ngi ziar bu baax baax baax jaajëf ñëpp di nuyu sama ñaari jabar ja <laughs> sama ñaari jabar maa ngi nuyu